Bonjour, comment et comment la santé comme seet spectateur ñu ngi leen di nuyu am mbégte ak contentement di leen présenté waa seen benn émission fagaru leen nag ñu ñëwoon fii ci chef filière ñebe ñu amoon fii seen 72 heures xeex jële fi xeesal ñu amoon fii comme coordinatrice bi ak euh, étudiant Lassana Sonko nekk étudiant UGB université Gaston Berger de saint wi comme ça ñu jox euh, coordinatrice bi mu présenté wu avant que ñu ñëw si question yi waaw salaamaaleykum mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, kenn ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd madam Thioro nekk euh, coordinatrice union nationale des femmes coopératrices du Sénégal union nationale des femmes coopératrices du Sénégal nag benn kuréelu jigéen la boo xam ne dafa ëmb fukki région yu Sénégal maanaam dag diggante Dakar ba Ziguinchor fu nekk dafa am antenne régionale waaw. ok Lassana nga présenté wu tamit. bon salaamaaleykum man Lassana Sonko laa. étudiant en médecine à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, plus particulièrement à l'UFR des sciences de la santé. Euh, léegi nag euh, ñoom dañu amoon 72 heures bi nga xamante ni moom la ñuy def fii seen siège bi lutte contre la dépigmentation volontaire euh, madame Fall mën nañu xam lan mooy dépigmentation. pas dépigmentation daal ci olof mooy xeesal. mooy sa yaram ñuul. nga bëgg a changer xees man de noonu laa ko xamee xëy na nag ki nga xam ne moom moo def santé jàng ko moom mën na ko gën a xóotal mais man noonu laa ko xamee maanaam sa yaram ñuul nga bëgg a xees est-ce que am na tamit ay sorte de de dépigmentation dépigmentation loolu xam nga ci choix nit ki rek la lii am na ñoo xam ne dañ naan teint laa bëgg kafe au lait am na ñoo xam ne ñoom dañuy rocci ba mu xees comme tubaab loolu moom ci choix nit ki la rek waaw ku nekk ak sa sa ni nga ko bëggee daal mais xam nañ ne daal benn baaxu ci ndax sonkoo leeral na ko nee na leeral amul xeesal moo am waaw waaw. mën nañu xam lan mooy conséquence su dépigmentation volontaire. bon conséquence su dépigmentation volontaire yi bëri na léegi boo koy tàmbali da tàmbali yi nga xam ne day feeñ ci yaram bi bokk na maanaam kii di xeesal day utiliser produit yu ñuy utiliser bëri na mais yi ñu ci gën a ràññee mooy corticoïde wala hydroquinone. léegi utilisation abusive corticoïde bi day amee sir peau bi maanaam produit boo xamante ne immunosuppresseur la ba pare anti inflammatoire la léegi loolu day tax yaram bi euh, feebar yu bëri da koy gaaw a dal moom mooy dermatose yi day am ay dermatose maanaam mooy yee ngay gis si yaramam bi day gaaw am picc beneen bi mooy day wokkatu mooy gaal day am tamit ay rew léegi tamit am na yeneen tamit complication cutanée d'origine bactérienne boo xamante ne mooy érysipèle boo xamante ne mën na see indi ba mu ñàkk si bakkanam yeneen complication yoo xamante ne tamit duñ ko gis bokk na si muñ naan diabète kii di utiliser corticoïde à la longue dure mën na koo entraîner diabète mën na see am tension mën na see am beneen feebar bu ñu naan hypercorticisme am na ñenn ñoo xamante ne mën nañ dem ba ñu développer si tamit cancer yooyu yëpp tamit mën nañ koo xay mën nañ ko wax ni moom mooy complication yu euh, dépigmentation waaw. ok loolu moo nekk les maladies liées à la dépigmentation amut ay yeneen par exemple. yooyu mooy yi gën a fréquent si complication dépigmentation yi. gondé ngeen laasana Sonko li mu wax ci dépigmentation bi donc c'est très dangereux est-ce que y a un moyen d'éviter la dépigmentation. waaw xam nga dépigmentation puisque bañ nañ ko ba ne volontaire maanaam nit ki moom mooy jël propre initiative am ne day xe leeral wala day utiliser loo xamante ne pour changer dara léegi lan nañ mën mooy prévention mooy informer nit ñi. communiquer ak ñoom ak jàngal leen maanaam ñu wax leen ni lii ñuy jublu def wala lii ñuy nekk di def nii da leen di indil ay problèmes yoo xamante ne bañ see dugg mooy ba ñu bañ see dugg mooy li gën parce que li la yàlla ji jagleel nga jàpp ko mooy li loo xamante ne joxalu ko waaw. Euh, est-ce que tamit mën nañu xam nit bi nga xamante nii déjà moom victime la ci dépigmentation peut-être am na benn maladie walla yenn effet yu nekk ci yaramam yan précaution lay jël. daa am ñaar mooy koo xamante ni mu ngi koy utiliser waaye amagul effet secondaire yi maanaam amagul complication kooku prise en charge am du bokk ak koo xamante ne daf koy utiliser ba pare am na complication yi léegi ki ko am da ngay jël prise en charge complication yi maanaam feebar yi mu am ba pare jéem waxtaan ak moom prise en jéem nu ñu def pour ñu bàyyiloo ko li nga xam ne mooy xeesal bi kii tamit nga xam ne ni mu ngi utiliser produit dépigmentant yi moom tamit li ñu mën a def mooy lan ñu prise en charge moom euh, xeesal bi muy def pour mu bàyyi ko beneen bi mooy lan ñu prévenir complications yi maanaam ñu def lépp ba tax na du am feebar yi nga xam ne le fait que muy utiliser produit xeesal yi mën na koo am waaw loolu. mais est-ce que toute sorte de dépigmentation am na ay effets secondaires. est-ce que nekkul ne am na ñoo xamante ne peut-être li ñuy diwoo c'est très fort moo indi euh, effets secondaires yi genre. waaw daanaka suñu xayma. amul bénéfice zéro bénéfice la effet secondaire ak complication rek nga ciy jëlee mais maintenant nag daa ça diffère parce que kii di utiliser hydroquinone ak ki di utiliser glutathion ak kii di utiliser corticoïde bokkul. ok quelle est la différence entre les trois. waaw corticoïde produit boo xamante ne dañ koy utiliser médecine pour faj yenn feebar yi léegi nag ci ginnaaw ay seetlu dañoo seetlu ni ñi koy utiliser pour ñi koy ñu koy fajee léegi dañoo dem ba seetlu ñooñ dañu leer. léegi nag ñii di xeesal nag ñoom objectif boobu noonu nañ ci ut te léegi utilisation boobu noonu corticoïde dañ ko utiliser de telle sorte que si médecine sax utilisation bi dafa dañ ko dañ ko encadré mais léegi yow mi koy utiliser te xamoo ndax encadré wu ko nañ ko wala encadré wuñu ko da lay indil ay gàllankoor gàllankoor yooyu noonu moom mooy li ma waxoon si njëlbeen mooy tension beeg diabète beek hypercorticisme léegi nag hydroquinone bi tamit moom tamit. comme corticoïde bi tamit mën na laa indil gàllankoor mais moom bokkul ak corticoïde bi corticoïde bi mooy bi gën a bon léegi tamit glutathion bi glutathion bi mooy am na ñoo xam ne dañ koy piqûre waaw yooyu yëpp tamit da lay indil ay gàllankoor. est-ce que tamit seen lutte bi fii ngeen koy yemale wala da ngeen koy décentraliser wa ñëpp jot ci parce que tamit euh, lutte contre dépigmentation yombul pharmacie yi yaa ngi koy wax ñu ngi jaay des produits yi nga xamante ne ni dafay dafay xeesal te loolu warul cosmétique yi genre nan ngeen di def ba ñëpp jot ci. waaw xam nga ku nekk da ngay béy sa parce que lii déjà c'est pas quelque chose loo xamante ne yomb gis ko yombul gis benn association boo xamante ne œuvré ñu ci santé ñu jël initiative boo xamante ne ils font des journées de sensibilisation sur la dépigmentation léegi objectif rencontre bi lenn la maanaam bu ñu fi jàllalee information bi wax leen lan mooy complication ñoom bu ñu eggee ci seen dëkkuwaay ak seen entourage ñu xamal leen ni expérience bi ñu fi jot a partagé autour de pendant trois jours ñu xamal leen ni que compli euh, dépigmentation bi ñuy def nii mën na leen indil gàllankoor léegi loolu moo tax ñuy genre rencontre yi am importance parce que Olof Ndiaye danaan fagaru moo gën faju waaw. Euh, madame Fall yan conseil ngay jox ki nga xamante ni mooy def euh, dépigmentation volontaire. waaw xanaa mu jéem ko bàyyi rek euh, ci bàyyi bi aussi am na lu njàng ci fan yi defe naa ne ak ndar bi ñu demee Saara wax na ko même chose Lassana euh, répété na ko soo koy bàyyi tamit nga def ndànk parce que comme sa yaram dafay produire corticoïde ci ni ma ko déggee su fekkee yow da ngay xeesal xëy na moom dootul libérer corticoïde boobu ba tax na boo xëyee bàyyi ko rek xëy na mën na am gàllankoor bu mu la def su fekkee même da ngay xeesal boo ko bëggee bàyyi da ngay def nga bàyyi ko di encourager di gën a ñaax aussi ñi nga xam ne dugg dugguñu ci surtout xale yi ñoom ñu bañ ci dugg parce que comme amul njariñ déjà ñoom yàlla may na leen atu yoo xam ne defaguñ ko ñoom ñu bañ ko gëm daal même sa jëkkër sax bu la nee xeesal war nga parce que yow sa sante bopp yaa ko moom te boo feebaree xëy na moom fi mu mën a rey yem rek lay yem bu dee ordonnance day jënd bu amee bu amul du jënd kon nag bu la xeesal loo yow war nga xam li baax ci yow ak li baaxul ci yow man daal di gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo koy def ñu bàyyi ko ndànk-ndànk ñi nga xam ne defuñu ko aussi ñu bañ ci dugg waaw loolu daal moom man moom laay ñaax aussi di sant fondation bi nga xam ne moo ñu gunge pour ñu mën a réaliser li daal parce que xëy na mën nga ko bëgg mais moyens yi nga koy defee des kon nag ñu ngi sant bu yeb bu baax a baax Eric Bol mi nga xam ne fondation allemande la boo xam ne ni ma waxee woon léegi sànq dafay yëngatu ci écologie moom daanaka ci wàllu yooyu rek lay liggéey ay mbuus ak ay mbalit ak li nga xam ne daal nit ñi dañ ko xaw a oyofal te moom mooy gën a gën a sonal nit ñi ñoom ci yooyu la ñuy yëngu ñoom aussi ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaax di leen gën a tàllal loxo parce que nii ñu ko defee ndar xëy na bu ñu ko defoon Jurbel dina ëpp dina ëpp solo nii parce que ndar ñeenti weer la bon ñoom daal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax muy Eric Bol waaw. kon Lassana lan mooy sa dernier moo ak la ngay wax population bi nga xamante ne nii ñooy def dépigmentation volontaire. waaw ok li ñu njëkk a def mooy rafet lu ñu fi teewee yëpp. Euh, di ñaan lépp lu ñu fi waxoon ñu àggale ko ci seen dëkkuwaay ak ci seen entourage yi. ak lenn lu ñu mën a wax mooy c'est prouvé scientifiquement que nit ku ñuul moo am meilleur peau lii nii ñeneen peau yi kon ñu garder sunu po mooy li gën si ñun waaw loolu mooy message bi. ok léegi mënoon nañu xam seen programme bi lan moo si rôle état jàppale na leen jàppalewul leen genre. bon question boobu noonu est-ce que doo ko posé madame moom moo gën a approprié pour répondre ko. waaw question boobu defe naa ne wax naa ko léegi sax bi may bi may def remerciement. parce que ñun kuréel lañ boo xam ne fondation moo ñu jàppale fondation bi euh, ONG allemande la boo xam ne dafa nekk euh, daana nekk Afrique mais mi ngi soog a ñëw Sénégal depuis depuis mai 2018 ñoom ñoo ñu gunge euh, ci lépp loo xam ne mooy wàllu formation ONU parce que boo demee Saint-Louis am na am na une première formation initiale boo xam ne douze jigéen lañ formé ñoo xam ne fukki monitrice lañ ak ñaari superviseur ñooñu suñu paree dañu ubbi ay classe ci suuf classe bu nekk am ñaar fukki jigéen ak juróom xam nga foofu touché na deux 250 femmes ak 12 femmes euh, suñu paree ñu soog a am ñun atelier yi atelier yi li tax ñu gën ko yaatal xam nañ ne ndar rek du du du du Sénégal ndar rek aussi du du union nationale ñu ne ñun nañ fexe ci projet bi ñu tëggaale ko noo xam ne xay na ndar moom moo ci bénéficier parce que dañu xool ne zone nord bi fa la xeesal bi ëpp parce que souvent booy looy gën di dem Louga vers saint ak zone immigration yi comme seen jëkkër yi dañuy tukki souvent bu ñuy ñëw dañuy bëgg soppeeku moo tax ñu ñu ñu ñu féetale ko foofu mais ñu ne teewul zone boo dem rek xeesal bi mu nga fa nañ ci tëggaale ñun sunu kuréel ba nga xam ne naam du ñu am ñeenti weer yooyu ak li nga xam ne ndar bénéficier woonoo ko mais ñun dinañu permettre au moins ñu gis ci suñ bopp xam nga tey Jurbel amut ñeenti weer mais au moins kuy dem yóbbaale nga loo xam ne xam nga ne xeesal baaxul loolu moom lu nit dee dee jëlee na ko fii ensuite dañ koy def au niveau de Thiès def ko Dakar def ko Louga def ko Ziguinchor def ko def ko Tamba ci loolu nag Eric Boll moo ñu gunge ni ma la koy waxee woon léegi bon benn fondation la boo xam ne ñoom ci écologie kese la ñuy liggéey. chimique bi ñuy utiliser pour encourager nit ñi ñuy utiliser engrais organique ay affaire mbuusu plastique lan mooy danger affaire mbalit gestion ordure ñoom ci loolu rek la ñuy yëngu. normalement même bu financé wul ñun dañu fas yéene au niveau de Saint-Louis demoon nañu xool acteur de la santé. te incha allah ci bi demee publication yi di ñëw aussi dinañ jéem a xool euh, acteurs yi maanaam bu ñu demee ci suuf parce que fii ay groupement ñoo fi nekk ay ndula ak ture ndula ñooñu dañu nekk ci benn benn zone boo xam ne soit district sanitaire la wala poste de santé ñun dinañ jéem dem rencontrer ICP yi te ñooñu ay ndaw état lañ dinañ jéem a dem gis médecin chef de région ak district ñooñu ñëpp même bu ñu jàppalewul ci wàllu xaalis bëgg nañ ñu jàppale ñu ci wàllu conseil ak accompagnement moo tax ma ne état bi mi ngi biir daal parce que lii ñuy def ñun dañuy gën a jàppale état bi parce que ku xeex xeesal xeex nga ay ay feebar yoo xam ne war na ñëw ci kanam moo tax ñu ngi tàllal loxo état daal yaakaar nañ ne dañ ci gën a jàpp incha allah. laasanaa sa dernier mot. Ah, di ñuy di rafetlu interview beeg yëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax ak euh, information bi ñu fi passé yëpp ah, mu jàllale ak euh, lii di dépigmentation bu ko nit ñi bañee def mooy li gën ci ñoom. madame Fall looy tàggatoo. waa tàggatoo rek mooy di gën a ñaax rek daal xam ne ñun li tax ñu koy xeex fléau la rek amul njariñ daal dañuy gën a yee nit ñi rek xëy na fii acteur de santé yi dem ñun mënuñu fa dem comme scientifique li muy faja li muy inconvénient complication yi waaye lu mu gàtt gàtt ku nekk xam ne ne xeesal baaxul yow sa environnement immédiat boo xoolee rek fi la jege dinga gis koo xam ne nii xeesal am na lu mu ko def te amul njariñ amul mujj daal looy gën di jël at aussi ngay gën di mu day gën di sonal dañuy daal ñaax nit ñi ñu bàyyi ko surtout xale yi comme ñun suñu réseau dañ ne la défi de la relève fi mu ne projet bi ñu canadiens yi financé défi de la relève la tudd parce que dañu bëgg émerger jeunes yi moo tax dañuy gën a ñaax xale yi surtout ñu moytu xeesa parce que ñun ñi moom xam nga passé nañu yooyu mais daal dañuy lancer appel nit ñi wàññi xeesal bi koo gis tamit mu koy def wala mu koy waaj a def nga encouragé ko pour mu mu bañ ko def ndax amul njëriñ daal jërëjëf. sa internaute ñu leen di gërëm ci taamu bi ngeen taamu seen 3w point baol times point com c'était votre émission fagaru leen présenté par Ndeye Diouf ñu ngi leen jox rendez beneen euh, euh, beneen émission ak beneen invité merci.